fukki waxtu ak juróom la def ngir daal di jàllale discours am bu njëkk moom njiitu réew bu bees bi di Bassirou Diomaye fay daldi na dellu si bu baax a baax si réforme yi nga xamante ne ni moom la nama def rawatina commission électorale nationale autonome bi nga xamante ne nii bëgg-bëggam mooy coppi ko def ko li nga xamante ne nii moom mooy commission électorale nationale indépendante. ndax yaakaar nañu ne te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu waxtaan ak sénégalais yi lii di lépp lu laale ci wote. war nañ ko gën a ñongal war nañoo dem ci am loo xamante ne élection dootul dépendre ci ci ministère de l'intérieur direction générale des élections ndax jafe-jafe yi ñu ci am ren gis nañu ko ñu bëgg samp nag lii di commission électorale nationale indépendante boo xamante ne day moom boppam moom mi le nag bëgg na indi ay coppite yu mag jëmale ko ci parti politique yi nga xamante ni moom la Sénégal daal di am faaw rek ñu daal di xool anam bi nga xamante ni noonu la ñuy taxawalee yoolee parti politique ak tamit li jëm ci seen wàllu financement. war a waxtaane tamit li nga xamante ne mooy ni ñuy xoolee ba parti politique yi nga xamante ne bari nañ lool ñu gën leen a boole pour gën leen a mën a wàññi te jàppale tamit parti politique yi nga xamante ne ñu ngi ci langue politique bi am taxawaay gi war di former. di animer vie dund vie politique bi ñu mën leen jàppale ci financement te mu doon financement boo xam ne tamit dañ koy saytu. bëgg nañu ne tamit lii nga xamante ne mooy coowal fichier électoral fii ci Sénégal jeex ndax mënuñ ci élection yi ñuy dem rek ñu àndi coowal fichier électoral. ba tax na bokk na ci li ñu bëgg a jëm mooy képp ko am pièce nationale d'identité dootoo gisati ci gannaaw ne mënuloo wote ndax boo amee pièce doon Sénégalais di nga war a wote. Sénégal di féete 64e anniversaire lu feetu indépendance am naam sax ren ñoo amal lii di défilé militaire wante rek levée des couleurs lañ nar a amal fële ca palais de la république.